tey dëggal naa sama bopp ba tey de 97 ba léegi sama doom li muy sol laay sol miis yi soloon taxaw ma solo taxaw dama leen di daaneel de ñoom miis yi bu ma taxawoon da ngeen di daanu yéen xam nga lu de valeur en parlant de gëm sa bopp. Uh-huh. Ndeye xaar Faye célibataire la ba tey wala Ndeye xaar moo ngi ci buum ak euh, Serigne Modou Kara Mbacké bi nga xam ne moom la nekk nekkaloon wala jamono ji sëñ Modou da nga bàyyi sëñ Modou Kara nekk ci leneen. sëñ Modou bam jotee de nekk nañ ci. ba mu jeexee tamit jeexal nañ ko. kon jeex na. waaw sëy bakkan la dañ doon sëy jeex na waaye sama kilifa la sama papa sama idole dama ko naw diggante bi mënul jeex mais maanaam xëy na. ci wàllu zaahir li ñuy li ñuy li ñuy tënkoon muy sëy rek moo jeex mais moom sama kilifa la daf may conseiller ba léegi bu ma amee moom soxla wala ma bëgg ko laaj dara damay wax ak moom ba léegi ci kër ga laa bokk njaboot gi laa bokk parce que taalibe laa taalibe sëñ Saaliw laa te moom tamit xam nga ni Serigne Touba rek lay dund. mais xalaatoo tey jii nii ñu fasaat boole boolewaat leen ngeen doon benn. <laughs> fi mu toll nii waxi mag ngay wax nii waaye di nga fekk fii mag mu toog euh, sëñ Modou. man sax damay ñaan yàlla mag continuer doon taalibe mm. maanaam di liggéey di ko di ko jox man damaa ñaan yàlla tey am borom kër bu ko xamante ne nii day ñëw di ko teral wàcceel ko kaat kaat defal ko lu baax ak teraanga man damaa ñaan yàlla man xew am wala màggal am may indi samay teraanga samay nag indi ko ko ndaxte wax dëgg yàlla def na ko ci man ndax tey su demee tey ji ba fonk xasaayit Serigne Touba yi ci moom la jaar. su ma demee tey ji ba nit ñi ñu bëri di ma woowee madame Mbacké moom moo tax su ma demee tey jii ba fulla ju fulla ju bari ji nga xam ne moom la sama yaay def ci man éducation de base ma gën a gëmaat sama bopp sëñ Maodo def na ko ci man parce que dafa gëm boppam nag nit da nekk visionnaire boo waxee mun la visionnaire l'élégance l'endurance ak dëgg ak dëggu ak dëggal loolu ci moom laa kon taataanee kon kooku mu nekk sama sëriñ moom ma gën a lépp di ko ziyaar Mbàkke Balla ay di la wax ne la guddal fan dundal lool na sa dund am na njëriñ kooku doo mënoo rëy ni la. jamono ji yaa ngi ci buum wala Ndeye Khane nekkul ci buum. mënuma cee tontu. ah foofu la faaw nga nga tontu ñu. maa ngi ci bëgg naa bëgg naa nit ci ñëw. bu fekkee Ndeye amul dara. Hmm. nit ñi war a fëgg buntu te ragaloon Ndeye Khane. ñëw fëgg si surtout ah. waa Jurbel ah. bu fekkee Ndeye Khane mu ngi ci dara. Ah. ñu xam ne Ndeye Khane mu ngi ci dara. maa dégg daal naan am na ñuy fëgg daal. Hmm. waaw mais buum gi daal xam naa ne moom xëy na mi ngi ci diggante buntu bi ak man xaw ma nag ban côté laa ko daal mais daal loolu laa la ci mën a wax. kon nay xaar nee na ngeen ñëw fëgg si.